door ñëw fii yàlla na nanga ko seet lu mu mën a doon maa def lii ma def su ma ko deful woon doo reer sabab naa maa a saban sama sàqaar naa arda sàqa réaliser rek la mën nag guru ñaata lay am door a ñor guru boo ko jiyee guru dina yàgg de koko nag banaana it mango it xam nga lu tax seen tànk yi yéex noonu xam nga lu tax ñu diib du tëleeg yàlla te taxul njëriñ yee néew seen njëriñ yee néew mu diibal seen tànk dafa nga ne moos ni guru diibe door a ñor su suuna diibe woon noonu nit ñi du dee <laughs> gis nga borom bi lu mu def ba nopp lu mu def lu ne dafa am hikmatu moo di paravent paravent làqukaay booy làqu ku cuune nag defe ne laala nga làqoo def maanaam daal taw mu ngi làqu ci xiin yàlla ci xiin la làqu pour taw ku cuune ku ne defe ne xiinay taw dee mu ngi làqu ci feebar cuune bu ne defe ne ku feebarul deegoo yooyooyu ikkam mooy paravent bi muy làqu cuune ba cuune juwaale ko keneen billaahi gisal xam nga lu tax nit yéex a dox nit fas fas juddu rek waaw bul defe ne ñeenti tànk tax de déedéet nde juddu na waaxu te ñaari tànk la li tardé nit nag ba mu yéex a dox ñu di ko boot ci ginnaaw fas juddu dem mbaam juddu dem xar juddu dem xamuloo lu waral loolu mën a réaliser yàlla liir bu ne ca weenu yaayam lay añe weenu fas dafa kowe te bu góoree tëdd ci kawam doom ji mu xam ne bu ko wutalul càkkaaba du añ mu juddu rek mu saxal ko càkkaaba mooy waaw nit ñi nga xam na nag mën nga koo bokk nampal boot nampal kooku lu muy doyeen di tànk réyu tay baa yàlla ne ak loo mën a añe إنا سببنا ماء الشب ثم سقعنا أرض سقا فأنبتنا فيها حبا حبا لجك وقت وعنبا عنب لك تطن وغبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم maa saxal pepp peppay féete suuf ma teg ci inap mooy diw gu koy gunge door a teg rënd noonu la ko teg lekkam après rënd la door a wax defee laa ilaha dafa mel ni dafa fekke dafa fekke boo añ sotte ceebay lalu bagage bi féeti ko kaw nga pakete seen ya nga xamee mboole pakete ba mu jekk nga sax noppi yóotu ndox naan soo àggatee borom barke nga teg ci nga teg ci nga teg ci nga teg ci dessert noonu la ko tur ci alquran inna sabab naa maa sabab suma saqar naa arda saqar fa anbat naa fiha abban d'abord wa inaban wa rasban wa saytoonan wa naxlan wa adayiqa door a wax nag xulban wa fakiatin door a gestu wa abban abban mooy ngooñ mi mbaam bopp bi fas wi réere mbaam mbaam mi la amal amula bi mu la amalee te dara mu amalal la ginnaaw bi mu la boole laag li nga am ak sax am amee la sa mën a loo mën a loo mën loo mën a loo mënal sa mba mën a mbaam bu fekkoon ne boo sóoree sóoralaal ko ko amee na mbaam mu doy mbaam bu doon añ ci sàkku bi ko am menn mbaam mu doy waaye bi mu gisee ni nit bari na bëgg-bëgg te néew doole la la sa teg wa abban wa abban mataan lakum mataan lakum la ma jëkk wax wali an amikum ci abban mataan lakum la ma jëkk wax wali an amikum ci ci ci ci euh, abban euh, euh, boo amee sàkku dugub sa bitig ba antanoo ko nga jëli mbaam mu tegal la ko nga dàq mbaam ba ci ëtt bi wangar ñi sàkku dugub mu daanu ci kër gi nga dóor mbaam ci taat mu fekk mu fori ñax nga lekk yàgg sa waa kër laa ilaha illa allah wa in tuwadoo ni'matallahi la tazuha bët bu doon balaa ngaa xab sa loxo dem ci da ngay sonn gis nga we gis nga kawar gu ndaw gi rasoor la doole rasoor la yor mooy daanu di jóg bu ngelaw naawee rek nga seen ci looy gaañ rek rasoot bi ne bëpp mu ñëw dal ci kaw nga siggiwaat mboolem li yàlla binde yëpp weñ ci amul xet weñ rek moo tax loxoom yi nii la dëkk ci kanam yi <laughs> bët teel a yëg ne mënu la koo garde la baas bu ñuy wax mbaru bët yëg ne mënu la koo wàcce mu renvoyé ci ressort yu ñuy wax xef dégg leen ko olof tudde xef mooy xef mooy tax ñu tudde ko xef xéewal yu rëy yooyu ma defante kook yow nit nee naa yàlla joxe na avance bu fort avance bu fort a fort la yàlla joxe digge pay gu rëy rëy gu amul limite santaane service bu tuutee tuuti kii ku d'accord ak moom doo d'accord a ken avance bu rëy la yàlla joxe bu rëy rëy rëy dige pay gu amul limite santaane service bu tuutee tuuti ma ne kii ku d'accord ak moom doo d'accord a kenn jàllo guddi fukki waxtu la ak ñaar mu ne la nelawal fukki yeeg benn bi ci def jógal fàttaliku ma ma baal loo ma defoon te kat otul sa bopp maa ngi njàqare yoo xam ne ku ma ko teg ginnaaw géeyee doo nelaw maa ngi naqar yoo xam ne ku ma ko teg ginnaaw géeyee doo nelaw maa ngi nit yoo xam ne ku ma ko teg ginnaaw gee ne doo nelaw te mu ngee dox nag dara yàlla taxawul kullu yawmin huwa fi shan bul ñàkk gis dara defe ne nekkul fenn lu mu ne boo doxoon fekk fuy taw te subatagul billaahi boo doxoon gis ñuy góob te àggalaguñu boo doxoon gis ñuy baxaw te noppeeguñu boo waroon fi mu nekk gis fu xiir boo waroon fi gis ku gaañu léegi te bi muy julli géeye gaañuwul boo waroon léegi gis ko am njàqare goo xam ne reeraale wu ko soo waroon léegi gis borom xiiwal goo xam ne reeraale wu ko boo doon xool léegi nga gis jigéen juy matu te àggalagul fi mu ne ñu ngi ci sukuraat tey dogagul ñu ngay gas bàmmeel fii mu ne yëpp ngee dox kullu yawmin huwa fi shaan dara arrêté xammee nga alimal mulkeeg malakoot bi alaaji Malik di wax alquran léeg-léeg nga jux ci lu doy waar am na fa yàlla waxe fa in lam yastajibu ak fa in lam yastajibu fa leen noon ragaa nga ne fàng fa leen na raga dañ ko wan na doo ko gis li ko waral kii dañuy wax ak alimul mulk bii ñuy wax ak malakoot maa leen di wax lëf te dama koy giñ billaahi wallaahi tallaahi lislaam joxe ci la aw ba sëñ Tuubaa ne na ndax moos jaamu ba dee mbaa joxe ba dee mbaa mbaa googu nag kenn xamul mbaa gu lan la ndax moos jaamu ba dee rek mbaa joxe ba dee mbaa xaw ma mbaa ñu la xaw ma mbaa lan mbaa ngoog daal Sidi Abubakar Sadiq nee naa fi mu jaar ba nekk xalifa rasulullahi du xam-xam du jëkk ci lislaam du gën a jegeñ nabi Aliou ko gën a jegeñ rasulullahi foofu seen ñaari bàyyi bokk ndey bàyyi di ngeen ci xam dara léegi balaa bëri set moo ko ëpp xam-xam it seen Aliou moo amoon na xam-xame bar nabi noonu na maa ngi maa ngi si ne xam am porte bu nit war a jaar dugg aliyu la jibril dem na sax di ko natt ci loolu xam ne bi lu mu wax na la ndax maa intaqaanil xaweyin wooyu laa waaye yoxa waaye jibril soppeeku na nit dem ci aliyu ne ko yégg naa da nga am xam-xami bar sax aliyu ne ko fa li laay am mu ne ko dama lay laaj ana jibril fii ñu toll di wax ak yow fi ma wax ak yow ana jibril alayhi salaatu wasalaam fu mu toll tey aliyu teen nii ba mu yàgg mu xool ci ba mu yàgg mu teenaat ne ko asmaan juróom-ñaar di jibril nekku ci suuf juróom-ñaar nekku ci foto yi ba mu daan toogoo nga li mu widd mbaa di yow mi yaay jibril waay la ilaha illallah bu doon mbokk moo ko gën a jegeñ nabi bu doon xam-xam moo leen ko pële ñoom ñëpp su doon diine moo leen ci jëkk retard bi mu def nag ba roofu foofu dara waralu ko lu dul gën a sopp rasool laay ëkk lu ëpp gën a tàllal maa ngi maa ngi dévier tuuti mooy jàdd wax tuuti tasawuf ñëwaat fii ma nekkoon maa ngi nekkoon ci aqiqa balaa maa dem ci siira jombul ma juuxit ci fiqa mbaa naawu waaye rasool daana wuy ji invitation daana santaane ku ñoo wuy jil soo demee bu borom lekkaloo lekkal donte da nga or ndem kooru farat da daan wuy ji invitation daana wax saaba yi ku ñu invité demal soo àggee buñ la lekkaloo lekkal donte koor nga yóbbuwaale ndéem du kooru farat mës naa wuy ji invitation Abdullah ibn Rawaha ñu lekk ba noppi continuer waxtaan di waxtaan ak déglu di waxtaan ba dugg ci xeeti tiyaabo Sina Omar ne man de mboolem xeeti tiyaabo yi ñett ma ci gënal naa Ousmane ne ko man it kat xeeti tiyaabo yëpp ñett ma ci gënal sëy naa lii man xeeti tiwaay bu yëpp ñett ma ci gënal Seydi Abubakar ne man it xeeti tiyaabo yëpp ñett ma ci gënal nabi ne leen man it dañ ñett ma gënal ci xeeti tiyaabo yi toog tuuti muuñ ne jibril kat ne ne moom ñett ko gënal gaa yi continué waxtaan tuuti nabi reyaat ne jibril ñëw ne yàlla ne ñett ko gënal waaw góor kamara amar yow yett yi la gënal ci tiyaabo yi yan la mu ne premièrement ikraamu day fi wa sawmu fi sey fi wa darbu bayna yaday rasulu bi sey fi teral gan or kooru farata gu dajeg mbooyo moo aar sama jaasi ji di dal ci loo si yéefar ci commandement rasulullah yooyu ñett laa gën a bëgg ikraamu day fi wa sawmu fi sey fi wa darbu bayna yaday rasulu bi sey bañu ñu laajee Aliou yow nag daf ne maa ko Omar a bokk xalaat yette yooyu laa gën a xemam ci àddina ñu ne Seydina Ousmane mu ne bokk ak ñoom xalaat ñu ne ko loo gën a bëgg mu ne man ifsaau salaami wa ithaamu taami wa salaatu wa naasu niyaam say nuyoo te julit nuyu ma ko dana le ay ñam yu ñor julit di ko lekk ak ñéppay nelaw may julit وقليل من الليل ما يعيعون وبأثارهم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمعصوم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وبما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي من قرتين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا يالا ne bu ngeen waxul dara man ma ne laa yastawoon laaj na tontu أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ah ah laa yastawoon a indi faat ndaw bu fi joxe ñaari téeméer yi galagu rasul la yal na ko yàlla yombalal faat Diop ak faat Senghor seen yóbbante ñëw na man li ma gën a bëgg mooy fay nuyoo dana la ay ñam ñëppay nelaw may julli waaye Ababacar ba mu waxee teel ñu xam ne moo leen ëpp cofee ci rasul daf ne nabi man ñett laa bëgg mu na ko lan mu ne ko julloo su bay na yadayka wa infaaxu maali alayka wa kasatu salaatu bi ismika ñetti keef yëpp daf ko delloo Mustafa kooku kooku kenn mënu ko def rek juloosu bayna yadayka waaw wa infaaxu maali alayka wa kasratu salaati bi ismika tontu ma keroog ba rasool ne ci yéen ku ci ne mu gëme yàlla na ma ko wan ci wërsëgam fii ma toog bilaal taxawal lu waay joxe wax ko siina Ousmane dafa walanteeru ne alaya jaxsa man laa jaxsa lahu ku amul la mu war na ma topp juróom-ñeent fukk la génn ci naaga giléem yu ànd ak seen teg ak jaas yi mu ci gàll raas raas lu ko complété téeméer amul mu fukki naaru góor mottale ko fab beñuwaar tibb ko ci libidoor tuur ko ci rasoolu lay nebee ngi fab libidoor yi di ci fo muy def sarararar ci loxo yi mu di ko wëlbati ci biir loxo di fóon yenn yi naan yàlla na yàlla barkeel la Ousmane joxe ak li mu dese waaye Ousmane mënatula def lu ko lor ginnaaw jëfam ji ci lu bon def dara lu bon lu ko lor ginnaaw jëfam ji ndeke Ababacar a nga dam dabu ji la sàmmi woon la sàmmi woon dikk njëkk ñoo Ousmane ut na mu ne nañ inventaire bitig yi ñu inventaire bitig yëpp mu ne nañ dem tool seet garab ya ñu wàññi ko tout mu yëq waxande bi këpp ko porfor bi aji portemante bi dugg ci rondal gi boole yëpp jox Moustapha yor yor Ababacar millionnaire la tàkkusaan mu ndóol ñuy jébbale Fatimatu oo ko mënula dem ñetti ndaw ñëw amul lu mu sol mbàjj mi woon ci lal bi mu dese ko moom la tarax laa yuy jóg làqal ci ko ci koñ bi seen nit ñi mu am kersa àgg su yor benn bant di sampantu jël li ba ci asamaan yi juróom-ñaar tarax laa mbàjj mu xonq yor benn banta cippeelu ci nabi di sampan nabi ne ko bii te ni musula fee musula ko indi mu ne ko kaay gis noonu mbàkk jóg tourné seen Ababacar a ngi tarax laayoo mbàjj mu mel ni mu jibril yor bant bu mel ni bosom jibril na ko yàlla joxe na ordal kaw ak suuf kuy malaaka ne tëni tëni Ababacar bi màggal ko maa mu farsat ko yàlla da ne lazina yanfiquna amwaalahum bi leyli wa nahaari sirran wa alaaniya ñoo bokk jenn demir fa lahum la wax ñoo bokk folo maa jurul kon yal na yàlla bàyyi leen yal leen yàlla bàyyi seen wërsëg wi bi jaayi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dama wax ne boo yoree franc franc toog moom ci trottoir da sa xel nekk taxu génn trottoir bi war a sa frontière na moo monnaie sa franc boobu balaa ngaa dugg frontière bële lu ko mooy mu lamb ci say loxo mu nay taxee nag nga ñëw ci frontière bi ne doo ko wecceeku ba dugg ak moom ay këyit nga yor frontière yi àddina ak àllaaxira nag mooy bàmmeel balaa nga caa dem alaxira koppar du fa jëriñ mbuba du jëriñ wurus du fa jëriñ xaalis du fa xam nga ban franc fay dox tiyaaba franc bu ñuy wax tiyaaba fexeel ba li am rek balaa ngaa jàll farañcee bi nga soppi ko tiyaaba boo demee jëriñ ci yal na leen yàlla doole taxawu doole noo taxawu loole taxawu jullit yépp ma àggali tees bi ñu ñëw ci jàng yu guddi na ma yàlla ne na joxe naa avance bu yaayaa digga pay gu amul limite santaane lu tuuti guddi fukki waxtu la ñaar ci na nelawal fukki beeg benn jóg sant ci benn bi ma baal loo defoon otul sa bopp nag maa ngi njàqare yoo xam ne ku mu nuyu ginnaaw géewe doo nelaw maa ngi tiit yoo xam ne ku mu nuyu ginnaaw géewe doo nelaw maa ngi mittit yoo xam ne ku mu nuyu ginnaaw géewe doo nelaw te yépp a te ni ma amee droit dóor ko nit ñi la amee droit dóor la ko su ma teggeeg moom jaar feneen bàyyi la jàmm rikkiwaay boo nelawee ba fukki waxtu yeeg benn jugal sant ma ci bi ci des mali ahadin ahadin la wax indoo mali ahadin loo mansilatan indiya ka abi bakri aka foor amul kenn laa wax kenn kenn koo xam ne am na wàccuwaayu martaba bi Ababacar am ci man man Moustapha am la ñu boole fu ñu leen rob dem nga fa gis nga leen te Ababacar ci maandu lañ ko fa rob ndax ba mu toll sukuraat ne na bu ma dee yóbbu leen ma ca baax waaye maa ngi ñaan balaa ñu ma faa yóbbu nañ jaar ak man ci rasulullah bu kenn laal caabi bu kenn ubbi taxaw leen ak niiw bi rek ne ko sa xare tey diisu pour fekk ci la bu bunte yi ubbee boppam am naa droit bu ubbiwul boppam yóbbu leen ma fi ñu yóbbu ñëpp waaye bañ ko sangee sàng ka jullee ko enu ko taxaw ci bunte ba wax loola bunt yëpp ne teel ba ñu duggee di ko rob dégg nañu koy wax ci kaw asamaan ne damol abi ba ilal abi dàkk leen xarit mu fekkee xaritam moo tax ba alaaxira na bee jëkk a jóg ñun ñëpp ku ne dañ la delloo sa ruu nga yéex a jóg ngir yëg na tey la bis pénc yow ma yunfaxu fi suuri fa sayaqa man fi samawati wa man fi l ardi illa man saa allahu suma nufiqa fii uxra fa isaam qiyaamun yanduruun Moustapha rek moo naan ñokket tëj suuf dóor ndey jooram si dee bi ba kër jóg ci wetam kuy jóg dóor a jóg bu ñu yàlla nee jegeñ ci leen it du ñemeñ a dem nabee jëkk a dóor paa xëcc Ababakar mu dóor paa ful bi topp ko ñu dóor wuy ji yàlla ku tiitit mooy wàññeeku nabi dafa wax ci waxtaanam ne maa gën ci li yàlla bind dinaa leen jox bu kenn way maa gëli ko ana afdalul xalqi jumlatan wa tafsila awalu naasi xurujan isa bu isoo wa qadimahum isa isa wafadoo ومبشرهم إذا يئسوا وسابعهم إذا أبسوا مفتائي مفتائي جنتي بيدي يومئذ وبيد اليسرى اللواء والعمد وفي أراء وفي ورائي ملك ألف من الملائكة كأنهم لولو المكنون أي دارا ما قنت لي يالا بند بو بس بنتا ما يجيك جوك بني سوفي بنو جوكي ba ñu dox maay jëkke jiitu su nuy dem ba tiit dal nit ñi maay ku bégal leen ku ñu jàpp maay foqar ci ci kala jàpp ba max la ci sama kanam caabi ji ne yëpp maa leen di yor sama loxo day joor li waaw lam di maa ko yëkkati sama càmmoñ junney malaaka maa topp ak moo gën ñëpp war mursalaati orfan fal haasifaati hasfan wa naasiraati nasran fal faariqaati farxan fal mulqiyaati yëkkaraan عذرا أو نذرا إنما تعطل الله فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسول أقتت لأي يوم عجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاة أحياء أم لا نخلقكم من ماء إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون safara dina sànni ferñeent yu toll ni taax yu toll ni gileem gu ñu sëf bu nit ñi tiitee nebey waññeeku naan leen du pour yéen ku ñu téye maa laa foqar ñi ubbi bunte àjjana ñu tàbbi li yàlla bind maa ci gën tiitar taxul ma wax ko bu doon tiitar ma wax lu ëpp loolu waaye liwaawul am di bu ko nabi téyee ba ramm ba àggal Ababacar la koy jébbal mu ram ba àggal ko ciy jot door cee jot wàccu ci Moustapha kenn amuko ko nee na moo ma gëm ba ma ñëpp weddee moo ma wéttali ba ma wéetee moo dépassé aleelam ngir sama mbëgg-bëgg moo jaay bakkenam ngir man ba ñu jiitee bàcc ci xaari Irak war faa tàbbi nëbbu ba ñu agsee ci xunta war faa làqu Ababacar daf ko ne bul duggatu ji ku ma dugg luy gaañe gaañ ma dugg saañ pax yépp ba mu des mel na pax amul lu mu ko saañe dog mbubam ba mu jeex mu def kollab nen fa tëstanam saañe ko pax mi ci def ndeke ci la jaan ji nekk jaan ji atte matt ko na ngeen nelaw ci kawam ngir coono bëggoo sax a yee ñaqama daaj sa lexi Moustapha rek mu siggi ne ko lu xew mu ne ko jaane ma laal nabi tufli ko mu yem foofu waaye nabi ne ko dinaa la fay Babacar ba xam àddina mii nga ma jiitu pour dàqal ma lor foofu gunee fii jiitu waaye bu àllaaxira maa dee jiitu àllaaxira bàyyil ma jiitu la ca bàmmeel ya luy gaañe mat fale ko ba mu sedd nga door a ñëw ne bi jiitoo na ko ñaari at ne ko agsi la <laughs> yëpp leer na kon koo jiitu woon ci fa xam àddina saañal ko jaam yi bu la jiitoo ca bàmmeel saañal la malaaka yi ne la agsil fay na la jasaan wi jot ngeen doo loxo buy metti mu siñaale ak ñor nga dëbb ca paakam mbaa xotti bital mu sànni deret mitat woowu kenn du ko nelawaale su nekkul sa loxo mu ngi ci loxoy keneen soo demee bay yóotu sa bunt ndaw na deret ne la musiba am na oto ba këpp na ca la sa taaw duggoon ak sa jabar dee nañu ñoom ñaar xama kuy nelaw waaye guddi keroog doo nelaw bu nekkul ci yow mu ngi ci keneen waaw kañ loolu mooy naqar wi kii mooy mooy mooy mettit wi mu def nag njàqare ji ku reer bay léemu sa bopp bëgg a yóotu sa bunt bi ko tëj borom motaar ak seeg sandarma ne convocation duut ne suba wuyu jil xaw ma kuy nelaw waaye yow doo nelaw waaw kay ma ne yi yàlla ne maa ngi njàqar yoo xam ne ku ma ko teg doo nelaw dëgg la wala déet maa ngeeg nakar woo xam ne ku ma ko teg doo nelaw dëgg la wala déet maa ngeeg mittit woo xam ne ku ma ko teg doo nelaw kon bu ma teggeeg yooyu teg ko keneen ko gënul kon aqiqatan bu guddi dee fukki waxtoog ñaar boo nelawee fukki yeeg benn war ngaa jóg sant ma ci bi ci des soo ñàkkee fayda nag mbaa nga ñàkk bopp lànk nelaw fukki yeeg ñaar tout ba yootu ñetteel ba defula ngor soo yeewoo fudd dara mettiwu la nga yootu kaasa kafe naan mbaa bu dute mbaa loo mën a ndékkee yàlla man mi maye wér maye jàmm maye xel mu dal jukki ma balaa ngaa xëy ñaari rakk laa la laaj ma ne boo gàntoo ñaari rakk yooyu dem sa patron toog loola six heures ba une moom nga nangu juum nga billaahi amula xel mbaa gore ñaari rakk yi jukki ma ko door a dem nga gànt te mu fegul la yi ma la wax nga xëy dem patron toog loolu six heures ba midi nga nangu pour lim bu mu la dikk bu weer dee man naa balaa weere dee nga dee mbaa nga for ko morot mbaa doo ko jariñoo nga nangul loolu patron pour tuut soosu gàntul mawlaana tabaraka wa taala lii inna linsaana la salumun kafaar waaye xam nga na muy defam yàlla da lay bàyyi sago nga liggéeyal patron ba midi mu may la sago soo du rombal mu daw ak ni nit néewee doole ni fas baree doole xel mi nit làmboo ba liggéey loolu su ko fas làmboo woon nit def ko noonu njool moomu ñuy wax gileem kaar ñi nga yor sax balaa nga ko see teg mu àggal la suuf nga di ko mënee bëri ba mu àgg suuf nga bën na bakkan bi rof ci jaaru xale bu ndaw sa doom sax boo ko joxee fu mu ko jëmee jëm ci lu walooree noonu amee noonu njariñ moo tax yàlla ku mu ko teg teg la loxo doo dem de dina la contrôler dafa naqare digaaleel nag foo dugg mu gis la loo wax mu dégg ko soo nara te waxu la mu xam ko te mënu koo teg boo génnee mu séen la boo waxee mu dégg ci foo dugg mu gis ko loo nar mu xam ko jamono boo xamee ne xel génn na xel génn na ñu daal di tëj say karam dof su waxee su saagaa kenn du ko bind su waxee asalaatu kenn du ko bind su ooree kenn du ko bind bu sàccee kenn du dog loxo waaye nag bu dee dem àjjana ndax taklif bi dañ koy jël ci moom carnet yi dañ koy tëj te kaadar baa ngi fi tànk yaa ngi mel na mu meloon loxo yaa ngi mel na mu meloon bopp baa ngi mel na mu meloon benn piton la ñu rek mu perdal mënatul soldat soo wut seede boo ko yóbboo yoon dàq la buy wax doo ci dugg bu duggee say wax nga noppi doo ko may jabar bu la ñaanee nga bañ te ñu maaral nag ñu maaral nga xam ne xeel moo am doole moo tax alxuraan li mu yaa yaa yaa fu yàlla toll mu ngi fàtte na waxumaa ko amul xel de laallakum tazakkaruuna yaa ulil albaab rek lay wax laalakum taaqiluuna rekk lay wax waaye day jariñ borom gis nga formation doomu aadama li muy tuuti tuuti moom rekk la àddina xëj ci leen xëjul ci dara li ñay di rëy rëy bu fekkoon àddina yàlla dafa defar kurikki mbaa plan door koo def li ñay di rëy rëy kuriti a xejul ci moom li gayndey ñemeñ ñemeñ xejul ci moom xejul ci njamala xejul ci garab nit ki gën a tuuti xale bi bootu soo ko sa soo ko taxawalee am xam-xam daa fekk àddina yépp daje ci moom tout ndax dañu wax ne boo watoo neel yaa ci noor boo sëqee yaa ngi ci nawet soo gii xiin nga boo jooyee taw nga boo gëmee lëndëm na boo xoolee leer na boo sëqatee dënnu nga boo ñaqee laayi nga boo regee yaa ngi ci naataange boo xifee yaa ci beekoor soo gëmaantoo feebar nga boo nelawee dee nga wa karamna bani aadam laam gi xasmu la xat gi taxqiq la xat arab du ko lu dul ñeenti mu xatuk taxqiqi ak xatuk taqribi baatu taksiiri bu arab dugalee baatu arafu xat ci baat suy wirifee baat ba fekk yent yooyu lay làmboo benn muy taxqiqi mbaa muy taqliili mbaa muy taksiiri mbaa muy taqriibi xat daal ñu ngi koy employé ci lu am plusieurs fois ci lañ koy dugal mbaa lu am lu néew a néew a nga xam ne lu néew a néew la am mbaa boog li mu dugg di lu dëggu dëggu ko àndul ak sikki saaka mbaa muy loo xam ne presque am na amagul mais presque am na xatu taxqiq nag mooy gi wala xad karam naa bani aadam mooy xat gu dëggu maa teral doom aadama mbooleem bindeef yi bi ñu pare yàlla def leen boloke ci benn façon mbaa yëg nga ne fas mënu la jonkan xam nga ne mbott mënu la sëgg de mbëtt mënu la jóg façon yooyu yëpp nag nit mën na ko mën ngaa taxaw mën ngaa sëgg mën ngaa tëdde wet gis nga maa ngi wax naan ikkmatu bi tax bu fas juddoo mën a taxaw bu xar juddoo mën a taxaw mbaam noonu te nit tardé ay weer door a jàngaraam lu ko waral bul ma wax nekkat li ñu am ñeenti tànk tax nit am ñaari tànk soo ma waxee loolu may cuuj keroog bañ ko tosu tonee la taxaw te ñaar tànk la kon wax ma leneen xam nga lu sabab loolu sunu borom borom yërmande la inna la raufun rahimun bil ibad comme liir bi ci battub ndeyam la rëbitaay maam nekk su ca demulee fande tëb na rul kenn fande mboolem li yàlla bind mboolem li yàlla bind ñaar ba ñett rek ci toppatoo reer reerab ngoon ci midi nga di ko toppatoo li mbindeef yi bari tout ñett ko ciy def ku ñuy wax nit ak ku ñuy wax jinax ak ku ñuy wax xorondong dong dong te kenn du fande kenn du dëñ wa ma min daabatin fi arab illa ala llahi risqa illa ala llahi risqa ñu ne déet dafa wax ne amul luy dukkat ci kaw suuf am na foofu sax wala taa'iran yatiru bi janaayi ilaa umamun amsaalukum la foofu ilaa umamun amsaalukum moo di maa koy dundal maa koy toroxal maa koy teddal maa koy yëkkati maa koy tëral maa koy rey maa koy dekki am na kontorkat bu kontor bi yàlla ne amul genn daaba juy tëgg ci suuf mbaa borom dunga yuy naaw lu dul maa ko yor ni ma leen yore am naa ci moom sañ-sañ ni ku ca dee maa la rey ku ci juddu maa juddul ku lekk maa la ko jox ku naan maa la ko jox ñu ne am na ku mu tuddul ñu ne kan la ñu ne yàlla ñi ci jaw ji la wax ak ñu ci kaw suuf tuddul waa géej ñu ne tudd na leen ndax bi mu nee amul kuy dëgg ci suuf ak kuy naaw la tuddaale géej géej dañuy naaw parce que doxuñu ci suuf nekkuñu ci kaw kon lu ne ci diggante jaww ji ak suuf ci naaw nga nekk kon ci naawkat yi la ñu bokk amul benn benn benn daaba wa bi xaylihi wa bi xayrihi jalabal wara jalabal wara bi xaylihi wa jalabal wara bi xayrihi alaaji malik ne wali man ajabu doona xayri wa xayli nay la xayra muraad aadama la fi yàlla yebal na ko fowel ma jaam yi iblis boole aadama ak jaam yépp bëmëx mu ne si sa wallul ma si sa teg ngànkam iblis boole koog jaam yi bëmëx mu ne idrisa gaawal idrisa ñëw mu teg leen boole bëmëx ñu ne nooyin gaawal ñiy wallu ba trois cent douze wallu iblis boole ñëpp jëme safara rasul dog seen diggante fatima rasul imaamul mursalin nag kan min nabiyina wa imaamul mursalin mamadou lamine yaa leen gan نبيا كان أمته رهيبا وليس له مشابه من أنيبه يتجل محمد صلى عليه وسلم nabi dox seen digganteeg ñoom wàññi leen xaaji malik ne wa jalaba rasulullah laa wax de wa jalaba propagande ne moom nabi alwala mbindeef yépp ba yóbbu àjjana ñu ne fu mu jaar mu ne ñaari arma la yoroon bi xayrihi teraangaam ju bari ja wa bi xaylihi ak naaru yu go yu góor yu ñemintoo ñii jalaba bil war bil xayli ñii jalabahum bil xayli nag wali man ajaabu min xayri xaylin wala xayru ne la xayra maraan góor yu ñëw volontairement te jaasi indi may gu oom taxu leen a am jàkka nañu teegal Sidi Abubakar Cala quinze ans ci la nekk di def commerce misra te da bëgguti gént weer daanu ci digg këram mu sàngoo ko weer wa mel na mbàjj yeewu laajte koy firi gént ñu yebal ko ci benn labbe bu bare xam-xam mu ñëw ne ko dama gént biig labbe bi ne ko loo gént mu ne ko weer wu daanu ci sama digg kër mel ni avion bu daanu daw naa ba fekk ko fa mu daanu ma tëdd ci wetam sàngook moom mel na mbàjj moo xool ko ne ko na nga tudd mu ne ko Abdul Kaabati Ababacar tuddul Ababacar Abdul Kaabati la tudd nabi sax soppi na tur bi ba di ko wax Abdul Rahman ak Abdullahi waaye Abdul Kaabati la tudd pire pire tur woowu sax ñu daan ko Aboubacar kenn xamul lu ko war téere yi weren nañ ci parce que abou koo dégg ñu di ko wax tur mooy tudd kinaaya kinaaya la arab am nañu habitude ci koo taawloo ñu di la kooye aboo xaasim mooy firi bàyyi xaasim abu ibrahima mooy firi bàyyi ibrahima du tere nga am tur nee nañu li tax ñu ne ko wax abu bikri bàyyi jànq bi bikiru mooy firi jànq mooy Moustapha jabar yi mu takk yépp ci nekk góor jiitu na ko ci kudul doomi abi bikri looloo tax ñu ne ko wax abu bikri waaye jàngkat yi nañ du dëgg parce que tur yooyu jiitu juddu ay sit waaye nañ ko ko taamul doom ñu ne kon nag li tax ñu di ko ko ooye arab am nañu habitude loo jëkk a def loo jëkk a def ñu ne la yaay bàyyi jàng xam yaay bàyyi jàng xi jëkk gàmmu ci Kaolack yaay bàyyi jàng xi jëkk a nekk président ci Kaolack yaay bàyyi jàng xi jëkk a nekk alaaji ci Kaolack loo jëkk doon daal ñu ne yaay bàyyi jàng xam comme nag jëkk ju rafet ci lislaam Ababacar a ko jëkke ci arab ñu tuddee ko Abu Bikri waaye turam piir Abu Kaaba na nga tudd mu ne ko Abu Kaaba abdul kahba foo dëkk mu ne ko ardu ijaas fu ñuy wax màkkata mu ne ko li nga wax bu dëggoo dëkk bi nga dëkk yonent dina fa juddu yaay doon jaraafam Ababacar def na sept ans après door a arrêté commerçant ñibbi teg ci neuf ans nabi door a feeñ avant mu tuub nag ku bëggoon nabi la da daan toog di ko xool rek soppal ko boppam daana ko farul daan te tuubul am na bés nabi ne ko lu tere nga foofu dugg ci li ma ne mu ne ko bañu ma ko waaye yonentu balaa kenn ku gëm day wane muhjisa boo ma wanoon kéemaan bu tax ma dugg ci kon ma dugg ci nde yow rek laa bëgg nabi ne ko yow yaay laaj kéemaan Ababacar ba ngay def commerce ca Casamance gént gi nga géntoon labbe ba nga demoon ca secteur écart la mu la waxoon doyu la mu ne ko ashadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashadu annaka rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam <laughs> waaw waaw waaw waaw wallaay wallaay waaw liman ajaabo min xayri xayli wala xayru nay la xayra maraabi Sidi Abubakar la yàlla nu yàlla dimbale dimbale leen dimbale julit yépp di jaaye xayri wara nit ku baax njëriñ la ca gën loola génn waaye njëriñ bu yemee ci boromam du njëriñ bu yemee ci boromam du njëriñ arab yu mën a bari xam-xam danañu li baax li baax baax am na baax gu baax waaw am na baax ku bon am na mbon gu baax waaw ci biir mbon yi am na ci mbon gu baax a baax ci si ja xam nga gan bon a baax ngon mbon gi borom yemale ci boppam kooku <laughs> mbon gon gu baax baax bon gi nag mooy baax gi borom yemale ci boppam baax bu yemee ci borom baax googu baax baaxul waaye mbon gu yem ci borom képp génnu ko googu mbon bon gu baax la <laughs> njëriñ ñi lay mel day génn borom dugg dëkkandoom dugg xamaaleem génn ëtt génn pénc dugg réew àndoo borom ci sukuraat wéttalu ko ci bàmmeel taxawu ko ceg laaj dugg ko moomu jéggi siraat te yooyu ñett ku ko mënoon dangay xaar ba fi ñetti place loo ci def te ñetti place yooyu àggagul yàq nga dama ne ku mënoon balaa ngaa nelaw da ngay denc say nelaw di ko cornet rek di ci ba dugg a bàmmeel fa la jot am amul naaj na amul yaa tar tardé amul jugal nem ma rek ner ngay décorer rek di nelaw décor boo nelaw ba mu jeex nga sànni nelaw bi ko moom foofu ngay xaar ma dem danga koy denc ba dem ajjana du soppeeku du tàggoog yow ajjana duñ fa tuur ndox duñ fa génn tànk li nga lekk ngiy jaar ci sa pax yii ci sa paxi kawari yaram paxi kawari yaram yi ci lay jaar indiwaale odeur bu dàqa banita waaw ku ko mënoon sa yu neex yépp foofa nga koy denc kii du dara koo ko waxit mu métti koo ko wax mu naqari la nit koo ne doo dara moo mer waaye ma di expliqué léegi nga nangu billaay ku fekk nit kuy door a àddina kuy door a agsi ne dareet nga xam ne nit du dara day takk yor yor yaramu neen lu dul kawar du ko topp buñ ko fóotul kenn du ko laal bu ku fiy jógee itam boo xamee ne départ jot na ku la fa bàyyi ñetti fan ku fa romb tax taf ba kenam biir loolu foo toll yaa ngi yor sobi ñaari passage su sobe nga jaar nag doon ñëw àddina kon kooku ku ko ne du dara mu mu mu mu naqari ko dafa réere li nga ko wax ay lan ndamit ku ko mënoon ndam damu balaa nga koo def jéggi siraat xam nga xam nga xam nga siraat purem pur mooy firi pont safara dafa ne ci suuf foo gis nag ñu pom la fa tax ñu pomp fu naqaree jaar la mbaa ko fa jaar tooy mooy tax ñu pomp jaanama <laughs> jaanama tax ñu tëral siraat parce que àjjana dafa ne ca gannaawam sun borom fobul àjjana kat làng kook àjjana safara làngul ak àjjana de ñu làng nii déedéet parce que nit ñu bari man-man lañu li muy mën a mën a garde bu ñu langoon di nga gis ku ne poset di jéem dara ah. waaye xam looloo tax mu fab àjjana sànni fële ca mbir kilaan tëral fii safara teg ci nag pom bu nit ñi dekkee dafa am malaaka ci topp di taxañ suuf loo passé rek doo dellu gannaaw avancé rek nag baax si ci pom bi pom bi pour monter ko nii ba mu niwete junney at la desantar ko ba mu jeex junney at la mu ngi sowe ni njarwañ moo gën a yëngu jaañ gi ñu gaañ sa deegul moo gën a ñaaw jaasi ind gën a lëndam oxsat boo tarfatooy daam safa yooyu na min ku may laa waari duwa kana ala rabbika atman maqadiya su ma nu ji lazina taxawa nasiru salimina fi aju ajsiya amul kenn amul kenn laa wax yàllaay wax amul kenn contrôle leen seen bopp nag ku ci génn rek na yëkkati loxoom képp koo xam sama jant bi mës na laa wowal mennam póot menn rek mbaa ndox mi nga mës koo guux benn guux mbaa suba suuf si nga dëgg ci te suta yow mbaa nga lekk lu suuf yàbbi di nga ma traversel pom boobu ak koo mën a doon wa inna minkum ilaa waari si dee bi bakar mas naa war di tukki dégg ku jàng aaya bi muy lox ci fas wi ba daanu ci suuf ñu mépp ko yóbbu mu feebar ko huit mois ñu di ko seet wa inna minkum ilaa waariduha kaana ala rabbika atman maqadiya su ma ne ne ji ladina taaw wa nahshuru salimina fiha jusiyya yéeg bi junney at la desantar bi junney at la moo gën a sew njarwoj moo gën a yëngu jaan gi ñu gaañ te deegul moo gën a ñaw jaas yi hind gën a lëndëm oxset waxoon naa sànq ne ñi ñaar duñu dem àjjana ku gàtt xel ak ku goree bi ku gàtt xel du pareel mukk lu ak seegul te kat gëm lu amul gëm lu amul moo gën weddi lu am gëm lu amul gëm lu amul dajeeg waa ji muy dem nga ne ko foo jëm mu ne ci koñ bi mu ne la xaj buy màttee fa nekk de gànnaayul nga gëm ko ba ëmb say xeer laaxar ci ku gisula benn xaj da ngay fexesu rek dem waaye xaj buy màttee fi ne nga ne waxul dëgg ne kulbét mu ne la hëm di xam ne gëm lu amul a gën fuuf weddi lu sax ku xelam guddul baalut ma sax ndax téere yee laaj loolu Bachir ak Nasir da euh, sëriñ ka dafa am waa ju ju xam ne daal këfinul ku samba booye la waay ne ko yëg nga sëriñi tiijaan bu jullee tàkkusaan mbaa mu julli suba kenn ba yor kurusam kenn mu la wax ak moom loo wax wax du la tontu mu ne ko aha mu ne wax de bu ma daje woon sëriñ buy wér su ma waxee moom mu ne ko mënu la ko daje góor guy dem tool yor yor yor góor guy dem tool yor yor yor yor kurusam di wér mu daal di ko ne salaamaaleykum ko nii kurus ki waa ji ne ko waxoon naa la ko mu ne ko papa yow laa nuyu salaamaaleykum mu ne nii waa ji ko yow da ngay sonn mun laa muus ba ma wax ak yow mu ne ko papa yow laa nuyu salaamaaleykum mu ne nii kurus gi mu ne e baax na gaynde guy fàttee ne ci yoonu tool yi rek mu ne ko fu mu toll sunu borom tabaraka wa dafa fonk doomu aadama maa ngi laa dénk bul xeeb kenn nit parce que ki ko préparé dafa mat ki préparé nit ba mu pare dafa mat mooy yàlla wax naa la léegi ne li àddina yi réy réy bu doon am kuriki kuriki bi am plat xëjul ci ñay xëjul ci asamaan xëjul ci suuf xëjul ci gaynde xejul ci njamale ci nit rek la xej doom ji ngay boot boo kasampoon fii ci taabul ji dajeeg boroom xam-xam dina gis ne àddina gépp ngi sënku àddina gépp ngi nga ne ma lu tax ma ne boo watoo nel yaa ngi ci noor soo sëqee yaa ngi ci nawet soo jiiñee xiin nga boo jooyee taw nga boo gëmee lëndëm na boo xoolee leer na boo muuñee boo giwuñee melax na boo xeregee yaa ci naataange boo xiifee yaa ngi ci beekoor boo gëmmantoo feebar nga boo nelawee dee bi mu paree nag kawari bopp ba ci tànk canton la bi mu paree dañ ne ruux yaay chef de canton bi ruux ruux ne duma diriger canton sans secrétaire ñu ne xel kaay secrétaire xel ne duma secrétaire buur bu amul arma ñu ne tànk ak loxo ak làmmiñ ak gémmiñ ak ndigg ak yépp wallu ji ñu di arma yoo xam ni défendre bakk rekk tax défendre ko ci kaw suuf défendre ko ci biir suuf ni la say cër mën a mosole ci àddina na la ñu bëgg mosole ko ci àllaaxira jamono ah buur boobu nag foog moom noonu noonu bee di iblis bëgg-bëggam nag mooy yeew buur bi bi mooy ruux kaso bi mu ko ñëwee mooy jaanama yóbbuwaale nag soldaar yépp ba ilaa yomal xeer su ko defee nag ruuxu boobu jamono bu offensive iblis jógee secrétaire bi bu nasaxulee day daal di tëral plan plan bi mooy lan commandé soldat yi ne làmmiñ looy xaar laa ilaha illallah na jib kënu la boo xam ne dina ko yóbbu fu kenn xamul astaghfirullah na jib salaatu ala nabi na jib alquran na jib tànk looy xaar doxil bokk wala jël ko ku feebar demal ci armeel yi loxo looy xaar génneel sarax dindil lor bët looy xaar xoolal alquran yooyu yëpp arma la yoo xam ne dafa dàll dafa dàq saay-saay boobu mais bu fekkee ne nag Ah, ah secrétaire bi dafa nelaw ba mu àgg si yow ka innal maluka isa daxaloo qaryatan awaduha wa jaaloo aisata ala adilla wa kazalika yafaluun eh, eh, waxu la ba tàyyi bu ma ko yéexoon a gis dee loola sowe su ma ko yéexoon a ba ma ko nag su ma yéexoon a daw dee su ma yéexoon a yuuxu dee su ma yéexoon a waaf waaw kañ digg jaar foofu ñooñu nag niñ la soyee ci kaw niñ la soyee ci kaw suuf noonu ñoo bëggee mu soyee la ci biir suuf hmm. bul defe ne sa cër yi dañ la ko jox rek pour neen dañ la ko jox pour jariñoo wax naa la ne loxo yàgg na ak borom te mënu cee jariñu bët gis na ba tey te xamul li muy gis lan la noppoog taxam yi yàgg na fi te déggul lu mu ràññee lam yi yàgg na ci gémmiñ te waxul tànk ak umum yi ak fi yàgg te mënu la dox li ko yóbbee mën a dox mën a xàmmee mën a dégg ràññee mën a gis xàmmee la mu gis mooy xol xel mi bi mu tojee bi mu tojee ñu bëgg nag heure boo toll am loo paase bu fekkee ne la nga rusoon daaw la nga rusul woon daaw ba léegi rusagoo ko la nga ragalul woon daaw ba léegi ragaloo ko yonekkul ak ci yokk da ngay jékki-jékki ragalloo ñeme ñoon te kenn taraxalu ca jékki-jékki rusloo rusul woon te kenn jàjju la ci tànk nekku la ci loolu yaan ci wàññeeku dafa am jamono yoo xam ne yi wax nañu ne yoon may na la nga ñëw ci pénc mi tuur fi ndox te kenn du la yedd am na jamono yoon may na la nga jooy ci yëfi sa papa sa yëfi gan sa gan ak papa yor lëf nga jooy ci te kenn du la yedd am nay jamono yoon may na la nga romb pinc mi doo ngemb te doo rus kenn du la yedd am nay jamono ku fab sa yëf nga jooy mu ne ceeli bi jël na ko nga téye noppi waaye at yooyu soo ko paasee bëgg a dese ñàkk fayda googa nag dañ lay yedd waaw am na jamono at yoo xam nag boo ko yoree dem ci pinc mi bëgg a faa tuur ndox dañuy fab yet nag boo jooyee ci yëfi jàmbur dañ la soof nga ku la nag ceeli bi jël na ko donc naan yëpp sama yëf noonu ngay continuer ne la ñu bëgg sa saayir continuer te kat baatin bi dafa laaj liggéey ni saayir bi laaja liggéey ñun ñëpp ku ci sa xawatu yi am déet ku say we guddal sa bu sa yaram tilimee waaw kañ jikko ji noonu ñu bëgg nga liggéey ko lu demee ni coxor kañaan tayal bëgge bëggi nelaw yooyu yëpp da ngay xeex ak moom ni ngay xeexe ciri saayir yi mbaa mu teer ak yow fu la neexul yàlla dimbale dimbale leen jàppalenu jàppale leen réew mi yal fi yàlla sotti ndoxam jàmm ak yiiw te def defi naataange te jàppale ñi jiitu bi ormati rasulillahi jàppale ñi ci topp bi jaayee seydil wara ليلة الحروبة جل البدر جل البدر تدركه صلاتها وأتاها خير مرسل يوم العروبة جل البدر جل البدر تدركه صلاتها وأتاها غير معتتم yonent bi téere yaa ngi wax ne altine la génn mag altine la dugg Medinatul Munawwara waaye li wér bi ajjuma la na bee ngi agsi altine waaye dañ ko dalal ca banlieue ba gise Sidi Haaji Malick nekk penc mu ñox bànni omrin la nabi jëkk ca peelu booba jamono chef de village baa ngi tudd Këlzoum Këlsum xëysee ko jur umrul xëysi jur ko tuub na nag quinze jours na bi door a agsi waaye amul benn bétail l'islam bu mu fekke biñ laate formé benn xeex deena xaaj Malik nee na na bi jëkk fanaan mbindaan mu góor la fa fekk mbindaan mu góor ba naji la tuddoon fala fanaan altine talaata alarba dossier yi dellu si fekk ko fa Medina d'accord booba ñeenti goxa fa bani omrin bani salim bani bayadata